jaarale yoon waaye fexe ba rafetal li nga xam ne moo di secteur transport lu soxal lool la nguurug Sénégal gouvernement bi fas yéene nag jël ay doxalin waaye xalaat bu baax naka la ñuy indee permis à point nga xam ne ay poñ la ñuy jox ña koy jëfandikoo ak itam yoon ba nga xam ne war nañ faa jaar ngir am li nga xam ne moo di permis transport en commun te ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne moo di atu dawalkat yi mu nekk nag dogal boo xam ne bii xalaat yi wuute na ci. bi décision bi. képp ku yëngu ci oto rek da nga am tiitaange sa xel dalul ci ñàkk dalu xel googu nag loolu ñu wax ne permis à point yi ak décision bi ñu jël noonu dun ne bañunu ko wax na ne bañunu ko waaye ni koy jëlee neexunu ndax dafa am benn xalaat bu nu bokkoon ak ñoom xalaat ko dañu waxoon ni lii indi jafe-jafe ci oto yi secteur yëpp dañ cee am responsabilité bokk na ci lu ñu dawal bokk na ci tëli bi nga xam ne gouvernement moo ko defar bokk na ci autorité yi taxu ci tëli te ñoom ñëpp kenn ku nekk nu gis ni mi ngi indi accident chauffeur d'accord ñooy dawal tey indi ñu accident waaye kan mooy taxaw gi tëli bi di gën ko xotaal chauffeur nu waxtaan ci ak ñoom ay ati at te ñu tekki seen bët ba xam ne loolu dëgg la est-ce que bokk taxaw ñu bokk saafara lépp accident jóge fi complètement wala wàññi ko fi ba mu jeex tàkk waaye am na sanction yoo xam boo koy teg ko ci kaw chauffeur yi ki nga xam tiit ngir bu nekk ci kaw tëli nga doole war ko gën a tiitaange ñoom bu ñu ko defee bu ñu xoolee bi ñu ko commencé bala ñoo am 6 mois dañuy yëg ne accident yi yokku na mais accident yi wàññi ko. màgget gi nga xam ne woto yi màgget nañ ko nekk na rek loo xam ne lii lu ñuy waxtaane la lool ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo tali bi ñu bëgg lool ci fas yéene yeesal bi nga xam ne bëgg nañ ko yeesal parc automobile mu nekk nag projet ba gouvernement fii atum 2015. chauffeur yi ñëpp nañ changé seen jikko yi sénégalais yi yëpp parce que ni Sénégal di demee léegi dégg nga. ah wax dëgg yàlla rafetlu ma ko affaire dawal oto nag ñay joxe permi bi ñooñu ñoo xam niñ koy joxe waaye chauffeur si ñoom ñu ngi def li ñu man te ñu ngi moytu bu baax ndax mooy seen métier te sañuñ ko bañ. lu màggat fu mu ne ku fa indi lu bees ñu kontaan waaye na tegu ci yoon changement parking ñëpp ci d'accord mbubb sax soo ko yor ba màggat ñu la bu bees nga kontaan waaye bu fekkee dañoo fekk fukki mbubb jox ko fukki nit d'accord nañ ci. yomb naa séddale fukk téeméeri dërëm téeméeri nit na ko ne am dërëm waaye téeméeri nit téeméeri dërëm fekk am na ñu am rek ñaamul mer rafet nañu changement parc bi nañ ko ñëw indi ko jàmm ñu teg ko ci yoon ñun ñëpp ñu jéem a changé parc yi Sénégal avancé ci wàllu parc mi ngi avancé ci tëli nañu gën a góorgóor tëli gën a avancé ñi ngi avancé ci jikko yi nañu góorgóor changé jikko yi comportement yi noo ngi ci sëfoos pour mën guddeeg bëccëg nooy waxtaan ak ñoom solo gi nga xamante ne gii secteur transport am na ko loolu moo waral nag jàmp na lool ñu xalaat bu baax a baax ci formule yi nga xam ne moom la ñu war a taxawalee ngir rek euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllu secteur transport ñu rafetal ko te amal ko ci anam yi nga xam ne moo gën a sell te rafet.